يا ما جزم بامبا من غادم بسبت كنام بسبت وانغاب الرحمن مل إزاي سماما وفادد من شرفا عبد الأحد من حنفا أحد حليم الهاشمي وعبد الخادم المريد وصالح فرد فريد من حد حدا كل مريد يطلب ليل الكرم مسليا على رسول musalliman ala alwusul wa alihi ahlil wusul wa sahbi ahlil karami barkeb borom ndaam asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit ci mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di ziar di xalifatul am suñ Tuubaa suñ Muntaxa Basiru mu mu gën fee yàgg loolu mhm. di wér mhm. di sargal ak tatagal ñu bunt ci Mawlana Serigne Touba Khadim Rassoul borom 18 juin l'héritier attitré de Serigne Touba Khadim Rassoul le sauveur de la jeunesse Serigne Khadim Lo Guel borom daam waa si Serigne ak daam Serigne bi yàlla na yàgg lool te wér. nga gën a yàgg gën a wér. gën a yàgg gën a wér. yàlla na nga gën a yàgg gën a wér. Serigne bi ñoo ngi lay ziar di la bëggee di la màggalaat ak di la sargalaat ak di ñaanalaat Serigne Touba di gën a yokk say ndam. sëriñ bi ñun waa Mbaaw ci njiital jëwriñ Abdou Diol mi toog di suñu bunt su jëmm ju tedd ji ñenn la rek ci mbokk taalibe bi si njaboot bi nga xam ne njabootu nga ko fii ci Mbaaw fa seeni ne sant sëriñ bi cant boobu nag dañ cee lott lool amu cax kàddu yu ko yëkkati xanaa ñu ñaan la rek nga gën ñoo kàttanal ba ñu sax di du ko jëfal ngir kat sëriñ bi la sa njëkk rek mooy boole gi ngi boole sa bopp sëriñ bi loolu daf ñoo jomb sëriñ bi di tax mu jomb ñu mooy ñun dañoo am tawféex ci am giñ la am ndax sëriñ bi suñ la amul woon ñun duñu am sëriñ bi mënoon defee nekk ñu bañ laa topp wala ñu bañ laa xam boobaa tey jii suñu dund dootul amati njariñ sëriñ bi yaa tax ñu am bay amal ñeneen ñoo xam sax amuñu sëriñ bi li tax loolu mooy bës sëriñ Tuubaa mu tedd bi kat daa toogoon ak mag ñi ba ñuy tudd baatu alxuraan àgg ci wa maa tawfiiqi illaa billaah sëriñ bi ne leen ndax loolu xam ngeen li ci sëriñ li ci yàlla jublu ñu doom ñoom ñu wax nañ ko déggee sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul xamal leen ne leen tawfeex kat bu ko yàlla di tudd ci alxuraan ngir man ak yéen la yéen am gi ngeen ma am mooy seen tawfeex kon sëriñ bi ñun yaay suñu tawfeex sëriñ bi ñun yaay suñu lépp bi yaay suñu ndey sëriñ bi yaay suñu bàyyi soo ko doon suñu sëriñ sëriñ bi tey jii cant gi di gën a rëy ci cant gi mooy da ngaa fekk fu am koon dara nga def fa dara mooy sëriñ bi ñun kat xamul koon dara sëriñ bi nga jàngal ñu ba ñu xam te sëñ bi ci biir njàngal boobu ñun liñ ci gën a yëm mooy jàngaloo ñu sa bopp sëñ Tuubaa dong nga ñu jàngal sëñ Tuubaa dong nga ñu jàngal mënoon nga ñëw woo sa bopp ni ko sëriñ yu bari di ko defee sëriñ bi kat mënoon nga ñoo xamal sa bopp ñun sax ñu noppee xam sëñ Touba ñu ko sëriñ yu bari di ko defee sëriñ bi yow kat dañ ñoo jëfloo ci sëñ Touba woo ñu ci liggéey yëpp sëriñ Touba sëñ bi saa su ne ak waxtu ne sa yitte lenn dong la mooy nekkal sëñ Touba ak di ko jëfal loolee rek nga wax ci biir way wa ne saa yitte man daam du lenn lu dul jéem ngërëm lu sax ndéem sam xel lu set la na yeewoo ko yeete laay def te woote di fàttaleete ñu ne la sëriñ bi lan ngay fàttali nga ne Bàmba lu war la Serigne Touba Xaadimu Rasuul est une obligation ñu ne sëñ bi yow ñooñu ñan nga koy àndal mu ne éeyéen eh, ñi am xel demeen di sargal ñu bokk màggal xadim du jot la ñu ne ko léegi sëñ bi ñun suñ ñëwee ba sëñ Touba lan ñuy def loolu la ci jiitu mooy ngeen xam ko ne xam Bàmba jot na ñu ne ko sëñ suñu amee sëñ Touba lu def mu ne da nga koy fas am ne am Bàmba jot na ñu ne ko nag loolu luñ koy may mu ne jëfal ko war na nañ jëf te sell sëriñ bi ci rek nga woote daal ñu nekk duñu yiir duñu aar sëñ bi wóof ñu sëñ bi yëg ñu yëg koo xam ne ñun sax ëpp nañu sëñ bi sa yërmaande ci ñun ëpp nañu da nga nekk tuubaa Baxdaat ak foo mën a ne ñun ñu nekk fii ci mbaaw waaye yëg diñ la yëg loolu mënuñ sox di ko misaal sëñ bi jege gi ñu jege loolu sax mënuñu koo misaal ci ay kàddu loolu sa yërmaande la si ñun saa su ne yaa yi saytu dañuy taxawu mboolem lu fi waay xew de sëriñ bi dañ ci taxaw ba mootawaat sëg lépp loo xam ne tey jii aajo jàmbi la rawata ñu ñun waa mbaaw lu mu ci mënti doon heure boo ko xam ne nag jéem ko sëñ bi da ko taxawal ba sottiwaat bu mu kon nag sëriñ bi ñun amul lenn rek xam ne danañ la ko defal muy fas yéenee doon ay góor yoo xam ne dañuy sax sëñ bi di la jëfal sëñ bi li ngay ñaan mooy di gën a bëgg te sax di la gën a bëgg sax di la gën a jëfal ñun amul njitte ku dul yow te loolu yaa ko def si ñun seigne Touba rek nga ñu tangal seigne Touba rek nga ñu xamal ci ay jëf mm. kon nak sëriñ bi lolu mm. ñun ñu ngi la koy santee dina ñaanal ngi gën fi yag loolu te mm. assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatu asalaamaaleykum mbokk taalibe yi ñu nuyu ñëpp seen tur seen sante di ñaanal laat xale général pour mu rek mu yag loolu te am gër di ko ñaanal suñu gund ci sëriñ muy sëñ hadji loo koy def borom ndam mu yag loolu te am gër ngi sante mbokk talibi yi nga xamanteni ci ñoom lañu sëriñ bi boole fii ci Touba Mbao ñu ànd fi di fi liggéey di leen nuyu di leen siyaare di leen sant bu baax a baax ci teewaay bi ah kon nag ñun day ku ñu fi tax a toog tey muy borom di si ki nga xamante ne si tey sëriñ Touba moom lañu boole àdduna ak ci liggéey bi ñu day ñun day fii ñun ñuy féete fii ci Mbao ak li ko wër ñoo ngi koy sant bu wér a wér amuñu payam sant nañ ko sant xam ne am na fu mu tàmbalee tam na fu mu yem ñun day sëriñ bi de tey bu ñu daal dëgg dëgg murit tey jii ci moom lañ ko xamee mm-hmm. dëgg dëgg taalibe ci moom ji lañ si gis dëgg dëgg pas-pas loolu ci moom mi moo ñu ci nàmpatal kon nag ñu ñii de ñi nga xamante ne sii ñoo féete fii ci mbaaw ñoo ngi koy sant bu wér ñoo ngi koy gërëm bu wér sant nañ ko sant boo xamante ne si te ñun xam nañu ne leer nañu ne day fu mu ñu féete ndey ak bàyyi lott nañu suñu ñu féete ñu foofu moom képp de moom donc moo ñu mën a féete foofu kon nag ñun de ñoo koy sant bu baax a baax a baax di di di di di gën a yeesal suñu pas-pas du gën a yeesal suñu suñu jaayante ak moom di gën a yeesal si ci ci ci dëgg-dëgg ànd moom liggéey Serigne Touba ndax ci loolu rek lañu lañu lañu nàmpatal te ci loolu lañ ko xamee boobu baax ba tey te saa su nekk ñoo ngi ndam bu nekk ñoo koy am ci ci ci ci ci ci ku fi toogal Serigne Touba saa su nekk te lépp rek mu koy delloo mbokk taalibe yi te moom du si duñ si wan boppam benn yoon du si du si fës benn yoon ñun rek lay wax saa su ne bu demee Touba ba ñëw bokk taalibe yi bokk taalibe loolu képp lay dégg xarit bu mu toog ne ko ñaanal mbokk taalibe te ñun ñii tamit bu fi fawoo saa su nekk dem ba Baxdaad ana mbokk taalibe yi la ko wax kon moom ñun ñi tey daf ñëw njëkk a nawloo ndax saa su nekk mbokk taalibe rek la ñuy laaj kon nag koo xamante ni si loolu mukk boppam sëriñ bi rek la lay wax koo xamante ni si tey jii nu ko ñu bëri doon defee mënoon na ko di defee nga xamante ne si tey war na ñu koy jël du ko jox addiya tey mu koy jëfandikoo di ko def ci boppam hmm. waaye loolu lépp tey luñ ko mënta jox ñun leer nañu ne leen sëñ Tuubaa kon nag koo xamante ne si moom ñun am nañu ku mel noonu kon ñun ñi nga xam ne ñooy mbokk taalib ñun ñi nga xamante ne ñun la teg fii ci mbaaw ak li ko wër wala Ndakaaru Cap Vert bi yëpp ñu war a xam gën a xam ku ñu am gën a góorgóorlu ci liggéeyam bi gën a taxaw ci liggéey bi gën a jaayante ci liggéey bi ndax ñun leer nañu ne ñun tey jii ñun amuñu ku mel ni moom si jamono ji bari Serigne Touba ku ni Serigne Khadim Lo amatul ñun loolu bu demee ba loolu mu leer ñu ku si nekk sa jaayante ci liggéey bi sa dërëm bi ngay def si yow leer na xam nga ko bu wér waaye ñun leer nañu ne suñu bu ñu ko tàbbee si liggéey bi si sëñ Mountakha la jëm wala ci liggéeyam ji université bi mel noonu bàcc Serigne Touba xam nañ ne ñun ñi ku ñu am xam nañu kan la Serigne Touba foo ko teg donte sax xamuñu ci lu bari way amna ci ak tout ne ñu na leral ni ne ku ku ku dul umpaleeg sëriñ bi la. ñun hmm. mom lu ñu leer la ku dul umpaleeg ben ben ben ku fi toogal serign Tuubaa ñu tamit loolu leer nañ kon nak bu deme ba yoy yep leer si jëmmam gii bu bu mu leer nañ nañ nañ magal ndaw góor ak jigéen kon tey jii waruñu gën a góorgóorluwaat gën a jaayantewaat gën a takkaat laxasaay yi gën gëna gën a pëstifuwaat ci yi nga xamanteni ci mo moo nekk suñu kanam sa su nekk ndigal yi du wacc te ñu leer nañu nañ que liggéey bu jot bu bu buñ ko noppee rek naan lañu beneen. loolu moom seen daal moo fi waxoon waaye day jamono ngi nii ay jamono ngi nii ñun ñii waa di seen xaalis loo loolu ñuy dund. parce que si Tuubaa bu bu bu rek ñoo ngi naan beneen mosuñoo toog mukk te ndigal amul moom nàmpatal nañu ba loolu nekk suñu barki Serigne Touba bu ñu toogee sax di xaw ñu dégg sax maanaam maanaam loolu day mel lu ñu xaw a jaaxal ndax loolu boo ko ne suñu te te te te te te te te te bëgg baax rek moo tax loolu lépp bëgg bëgg bëgg bëgg tey ji bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu xayee suñu xol yi fekk sëñ Tuubaa bu ñu bu ñu dugalee suñu poos fekk ay dërëm yoo xamante ne mën na si teral suñu bopp teral suñu way gën a gën a nekkaat ci ndigalam ndax loolu képp mooy njëriñ àdduna ak alaxira kon nag ñoo ngi yemale foofu kàddu yi di ñaanal bopp taalibe yëpp ñu gën a ñu gën a ñu gën a suñu borom yokk leen bu wér gën a yokk tawféex yi gën a yokk wér bi ñaanal sëriñ Xaadim Lo bi nga xamante ni si moo mbiru si sëriñ Touba bu yàgg fi loolu demee di ko ñaanal xalifa général dañ ko ñu yàgg fi loolu daan nag ñu ngi jéglu bu baax a baax taxawlu naa xatmu waajaar jëm ci yow mi fi gën tawan ginaaw ñëpp yaa may laq yaay ki fi man